waaw ah, fii sama fief la daanaka fii lañ fii la lépp dooree waaw tey tey tey bu ñu eggee yenn niveau yi fii euh, fii moo tax parce que ñëpp fii lañ ñu xamee donc euh, euh, di remercier ñëpp ñu ma ñu ma jàppale ñoo xam ne depuis commencement bi la parce que fii boo daaw moo jàngal football Moustapha Touré petit ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm te yéexuñu ko sama coach la tey euh, voilà école de foot bi tamit mi ngi continuer ak gars yi je que ne fii aw ma aw ma mooy daal pour wax pour pour décrire vraiment mbégte bi fii parce que boo xoolee fii ñëpp gars koñ bi fii yëpp fii lañ xam daal donc euh, daanaka balaa may dem lépp lépp lépp lépp fii la donc tey dellu si fii xam nga lii yëpp fierté la ñëpp ñëw manko xam nga moo li ñuy wax rek comme suñu slogan bi man ko wuti ndam li donc tey euh, yàlla def na def na def na xéewal donc euh, dem nañ yàlla may nañu ndam mu ngi ci gën a góorgóorlu vraiment di di di remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñëpp awma awma seen fay xama waa Parcelles waa Yoff waa waaw ñëpp ñoo xam ne ñu fi ñu fi mun a jóg waa Pikine feneen ak feneen en cas maa ngi maa ngi leen di sant leen gërëm parce que vraiment tey wootee nga wuyu si la dafa neex waaw donc euh, vraiment maa ngi jaajëfal yéen ñëpp maa ngi waaw gars yi nañu gën a dooleel rek yombul nag parce que tey bu ñu la sasee vraiment euh, du doon lu yomb te yaakaar dafa fort gars yaakaar nañ ci ñun vraiment mu doon loo xam ne euh, ñun ñu ngi jéem a def lu le maximum pour pour am ndam donc di di ñaan yàlla incha allah ni ñu commencé 2022 ñu jeexuloo ko lu ko raw incha allah. Euh, wax ci dina ma xaw a dina ma dina ma xaw a diis parce que euh, dafa doon koo xam ne dafa def lu lu rëy si si si sama formation daanaka petit fii ñëpp bu ñu bu ñu bu ñu bëggee fool moom moo tax tey mu doon nit boo xam ne six heures du matin laa ko daan. moo bu ma daan bëgg a entraîner six heures du matin laa ko daan wax wala cinq heures wala heure boo ko munti wax boo ñëwee fi nga koy fekk boo boo ñëwee six heures cinq boo amee cinq wala cinq minutes de retard wala dix minutes de retard dala xëy wax l'heure c'est l'heure après l'heure ce n'est plus l'heure junior senior lépp loo xam ne fii nii nii nii daanaka daanaka moom la président du ma bàyyi ma fen am di du ma fen fii ñu bëri ñoo xam ne duñ ma duñ ma bàyyi ma fen mënu ma wax mënu ma wax vraiment mënu ma wax sama yéene ci moom rawoon na rawoon na lii bëggoon naa lii yëpp mu fekkee ko donc euh, su ma su ma su ma su ma demee rek du baax mais maa ngi mais mais vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm di ko ñaanal fi ko fu mu nekk gënal ko fu mu jóge te xam naa ne loolu day am parce que nit bu nit bu nit bu nit bu bëggoon euh, euh, nit yi la vraiment. jàppale nañu dooleel nañu ñun ñëpp donc euh, vraiment lii lii lii lii ren trop si man lii ren trop si man ren trop si man. Euh, avenir bi ah waaw yàlla yàlla baax na nañ nañ dem ba si kanam rek dinañ gis incha allah nañ nañ gën a góorgóorlu rek nañ gën a góorgóorlu rek incha allah mooy li ma wax ci ci début bi rek di ñaan yàlla ni ñu commencé janvier bi ñu ñu terminer ko ci ci ci ci lu raw loolu parce que vraiment manko bi. rafet na non transfert yi moom dinañ ko dégg tey boo nekkee footballeur moom di nga dégg transfert bu ne mais li ci gën a am solo mooy instant saison bi jeex na donc dañuy jéem a noppalu tuuti ñun ci wàllu football bi la ñuy la ñuy nekk après am na ñoo xam ne vraiment loolu mooy seen loolu mooy. témoignage ci petit waaw maa leen di nuyu di leen ziyaara xam nga Famara di mbokk mu baax di doom di jarbaat di lépp ñun yoof lañ jógee ku ne xam na ne yaayam waa yoof la Xarindoy Diagne. xam nga ma koy nuyu faamal ma koy souhaité ñëpp ñoo ko yéene mu dem ay Angleterre club yi gën mag si àddina foofu lañ koy xaar te incha allah nafa dem ndax jomam a fitam lépp may na ko mu nekk xale bu yaru bu baax tey boo gisee Sacré Cœur ñëw nañ Yoff ñëw nañ mbooleem ñu bari tey vendredi bi sax moo xat mm-hmm. mais ñu bari tey seen xel ak seen xol yëpp ñoo ngi fii ñoo kontaan si moom di ko ñaanal xam nga coupe du monde bi ñu jëm na doon meilleur si meilleur yi na doon yàlla na doon si meilleur yi xam nga euh, ñu ngi koy yéene mu dem ba jël ballon d'or man maa ngi ndooy maa jóge yoof ànd ak waa yoof yi Famara kontaan nañ si yow. xam nga waaw fa dëgg naa kontaan mooy li ma wax rek amu seen fay. vraiment amu seen fay famille mooy lépp ci lii famille la donc euh, vraiment jërëjëf ñu ngi nuyu ñëpp ah di nuyu ñu fi teew yëpp waaw ñun nag ñu ngi jógee parcelle unité 20 waaw ku xam parcelle xam parcelle ni mu ni muy ni muy doxee. ñun yàlla moo ibbi suñu xol rek dugal ci Famara parce que am na pour bu nekk barki alxuraanu karim ñun ñii dañuy dégg lu nekk billahi wallahi taala mais kii lañ jox bopp instant yi nii te barki Seydina Muhammad tëbuñu tëbuñu rek engagé wu moom gëm nañ ñi day am indi trophée bu nekk te bëgg nañ chaque instant ñuy génnee suñuy ajuko di def mobilisation di ñëw fii nii di yëngal te loolu li ñu koy may mooy ay trophée yu bëri bëgg nañ kaan bi ñu jógee ni ñu ñëw fi keroog yëngal ñëwaat fi tey bëgg nañu faamara bu demee euh, mondial ba ñëw barki alxuraanu karim mu nekk teeru bu gën a rëy bi fi passé. seetaan nañu nag seetaan nañu am la moo tax seetaan nañu ñun parcelle ñëpp dañoo foog ne Famara intervient la dëkk barki alxuraanu xoolal ay may yu bari la ñu jox ba pare chaque match daf ñuy jox carte jox ñu ay billets ñu dem. billaay wallaay taalaay suñu grand frère yoo xamante ne amuñu moyen su ñun la ñuy suñu billet yooyu noonu la ñuy demee stade tey ancien footballeur lañ. Famara billaay wallaay taalaay waneegul boppam barke alxuraan am na lu des. kii ñun xam nañ ko petit bi muy wax petit moo ko yar fii ci terrain bi Famara danaan yeewu fajar ñëpp di nelaw gars yi di xëy di jooy bi di julli ci fajar ñu romb ko fii muy trën donc kii lu mu am ci football du sens mérite la di ko wax nag na gën a nañ koy conseillé mu gën a jàpp gën a góorgóorlu gën a fonk waa koñam gën a jàpp parce que nit amadulu sa waa koñ parce que lii yombul vendredi bii nit ñi war a dem xadara nit war a dem julli ji nit ñi war a nekk ci leneen bàyyi lim ndax moom donc bu amoon yenn bu amoon yenn jikko yi ñun duñu ci fekk nit ku baax la ñu koy seede di ko ñaanal yàlla si bàkk Cheikh Ibrahima Niass yàlla defal ko jàmm lu mbëgg ci wala yàlla defal ko ko. en tout cas di remercier encore ñëpp ñu fi teew di remercier ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu fi teew amuma bu ma waxee rek damay ju mais di remercier di remercier ñëpp di remercier di remercier di di ñëpp.